waaw fu mu toll nii de damay toog di analyser ne. mbirum Sonko bi. Euh, mbirum business la léegi. ah bon oui. que dafa oui oui mbirum business la dafa am ñu ciy ñu ciy gagné. Hmm. moo tax xëy na bëgguñu mu teel a jeex. am mu ragal tamit mu jeex parce que buy jeex dinañu xam ci ñoom dara. Hmm. am ñoo xam ne ragal nañu mu leer parce que bu leeree am lu feeñ am ñoo xam ne nag business rek la. Hmm, business rek parce am ñoo xam ne.

Mm. non comme tuba ban ko circonstance la ko mm. maintenant est-ce que comparaison yep n'est pas raison non parce que dañu la encore l'histoire se répète encore une fois du tuba wako wax. Ah. l'histoire se répète encore une fois. Mm. kon li demoon mën na c'est-à-dire léeg ñu comparer ñu ne déedéet Ousmane Sonko du koku misal léeg ñu né la dafa mel Moussa Firawna gars yi commencé yuuxu non Moussa kenn waxul né Sonko moy Moussa kële moy Firawna Firawna du tout système là Firawna du tur na boo gis ah, ñu ne taax Ramsès II yooyu moo nekkoon seen tur. Hmm. système bi la système Firawna la ku ko incarné rek. Hmm. mën nañ la ko wooye. ñu wooye la ko ku opposé rek mën nañu la wooye Moussa y' a beaucoup de Moussa y' a beaucoup de Firawna kon du jëmm ji la ñu waxal. Hmm. fee yi la ñu gis rek ñu niroog moom. parce que na dafa xëy ne dafa gént moom. ne dëkk bi dafa lakk lakkale ba des famille bi Moussa juddoo lakkul. mu woo bu xaaba yi ci pale bi mu leen gént bi lan la ñu càmbaar càmbaar xool seen affaire yëngal seen affaire ñu ne ko noo day tegtale ne am na foofu ci famille bi kuy judd moo lay folli te góor lay nekk foofu la na jógee ne ku foofu rey leen ko gis nga Babacar da daan rey janvier ba décembre. ba naan ko non da ngay tëbal nag góor ñi jeex. bu ci góoru famille ga la nga jeex. décembre ba janvier ba décembre lay rey day yónnee rek ku ëmb nuy seetu rek pare ñu rendi gis nga yàlla dogal. année yi mu année yi mu posul la Moussa juddu année yi mu pose de mm. année yi mu posul la judd pour yàlla xamal ko ne man maa la gën a doon ponkal yaay Moussa jur na Moussa gaa ñaa ngi wër Moussa ci néeg bi yaay ji bu ko téye dina jooy mm. dinañ ko jàpp mm. mooy yaay Moïse yàlla ne ko foofu nga yàlla di wax ak jigéen direct sans intermédiaire maanaam doo xam nag sonorité bi lan la woon yaay Moïse daal mu ngi dégg ne soo ragalee ñu lor ko wala ñu rey ko nàmpal ko ba mu suur nga dugal ko ci kees bi nga bàyyi kees bi mu topp dex gi. Mm. ma yóbbu ko ci kër na ni nga ragal yow. Mm. yaa ji ne comment ki bëgg rëy sama doom yàlla ne ko dinaa ko delloo si def ko. yaay Moïse nampal ko ba mu kii mu dugal ko ci kees bi kees bi daw dem vers kër Firawna ci palais bi mu ne Mariam Moussa amoon na sœur bu tudd Mariam toppal ma kees bi nga xool fan lay teeree mu ñëw bi kale ci garab gi léegi nag ñi sangu foofu yëkkati kees gis ko rek ñëw jox ko Firawna te boobu. mu ne kii fu mu jóg ñu ne ko ci ndox mi lañ ko foree dafa ne jabar ji dañ koy rey mm-hmm. automatiquement mm-hmm. ça sans comprendre dañ koy rey mm-hmm. góor la rey jabar ñu ko téeg bàyyi ñu adopté ko comme mën nañoo wala mën nañoo jëriñ gis nga yàlla Moussa gi nga bés boobu dañ koy bëgg xale yu jigéen yi ci palais bi jamono jooju dafa am ñu jóge ci kaw ga di wut ku ñuy nàmpal lo dara am comme yonent bi halimatu saadiya mhm. ci kaw gëna joge jógee ñëw di wut ku muy nampal mo tax ñu jox ko yonent bi mhm. da ngay ñëw ci marché bi ko marché luma xale jigéen ñi bëgg nampal nàmpal fa so bëgg nampal sa dom nga jël kenn diko fay muy nampal sa dom ñu ne daw wuti ku koy nampal ñu ñu ci marché bi di wër ku koy nampal sëru Moïse bu ñëw raxalok ñom parce que top na ko ba xam fu ne raxalok ñom naan leen ñu xale bu bëgg nampal daal mu làmpal damp mu ngi ni ñu ne ko ah mu ne leen wa te ngeen ma yoon mu wut jigéen bi nga xam ne mo koy nampal mhm. mu ne ko am nga ko mu ne waaw mu dem wo yaayam delloo soo ko xaat gis nga jawaru Firawna dañu ne moo comprendre bi yaay Moïse téye Moïse da ko jox wenn rek mu ne teg commencé soupçonné kii moo ko jur mhm. mais bëgg ko wax ñu ne yaay Moïse di nàmpal ñu koy fay te doomam lay nàmpal mhm. yàlla tàmbali woon voilà ah. Moïse màggee ci kër gi mhm. ba am 30 ans mu génn jamono di fekk ñaar ñuy xaar mu leen di àttee yàlla dogal kenn ki moom mu rey ko moom Moïse rey kenn ki moo ko moo ko dawloo dem Madian Firawna kon tenté na reyu Moïse lu mat trois fois mu raté. Mhm. bu ñu nekkee bébé ak bu mu ree nit kooku ci njuumte ak bu ñu retourné pour que mu ree ko ci la ko yàlla labale kon système bi la ñuy wax. waaw donc danaa dégg njiitum réew muy wax loolu. bu muy opposé Wade. Mhm. muy nettali ni ñuy firaaw na naan firaaw na nii la doon def nii la doon def tey dafa positionné wu ko kon problème boobu dossier boobu ay ay la dafa leer nañ nañ nañ ne. man maa ngi bokk ci nga xam ne kenn mënu ma gëm woon ne Sonko dafa def waaw ma la violé. Ah. ñu bëgg non xaar ma ma ma ma jox la sama justification. Mm-hmm. li li tax sànq ma ne yàlla na démocratie de man bëgguma démocratie animé ma ci affaire Sonko wala liberté xam nga laa bëgg mu mm-hmm. sama coran. Mm-hmm. yàlla moo ñu ne bu ñu sa mbokk jullit nel defu ko. bu ma comparé tamit ngeen baal ma. naa comparé yaay Aïcha ñu ngi ko tuumalee. yaay Aïcha du Sonko de. mais même effet yi la. yaa ay sa soxna yonent bi dañ ko tuumaal lan lañ ko tuumalee. tukki hmm. la def ak yonent bi. ñu hmm. retourné ñu campé. Hmm. caravane bi raw yaa Aïcha dañu dafa amoon soxla di ko faj. xaw ma xam daanu. mu koy wër ñu fekk caravane bi dem. bi ñu fekk caravane bi dem. mu toog ci kaw lal ci ci ci ci yoon bi. di xaar xëy na am ku mujj ci caravane bi. pour que mu mën ko yóbbaale benn saxaaba mujj rek. ci yoon wi ñëw ba fekk yaa Aïcha muuru mun quoi. Eh, ki kan la mu ne ko man la yaay Aïcha seen yaay Aïcha mu ne ko lu xew mu ne dañoo dem bàyyi ma waa nee na ma wàcc sama gilem ma yéegal ko ci kaw yéegatuma man dama ko téye ñu ñoddi gilem bi yéegatuma ak moom de hmm. dama ko respecté ba bëgguma ak ñëw ci kaw gilem bi ah. yàlla natt mi bi ñu dugg ci dëkk bi fekk fajar a ngi xar hmm. naafiqa yi génn rek gis leen ne ah ñii fi ñu nekkoon wóorul lu bon lañu doon def kon c'est pas la première fois ñu tuumal ku baax hmm. ah. yaa Aïcha dañ ko tuumal njaaloo ñii ci seen bopp yi jaxasoo ci Sonko ñoo leen di comparé bu ñu am problème dafa am ñoo xam ne ñu ngi hésité ba léegi man bokk na ci ñu hésité. ah justice de am na lu mu wax keroog barki Demba Ndiaye ñoom war ñu jël dossier bi di ko jugeel seen bopp te mbir mi mi ngi seen yoxo moo tax man parce que plainte dafa jibee ci ku jigéen jëm ci ku góor. waaw xam nga naa jox ku ku ku violé nga xool attitude Ousmane Sonko première sortem dafa attaqué njiitu réew mi. dut ko baram tuuma. première partie. nga ne kii xarul. doo def ndongo mu toll nii ki gën a yëkkati ko ci réew mi ci àdduna nga joxoñ ko baaraam. bàyyeegu ko ba dernière sortie benn ñaareel ba lan la wax keroog seen dossier la yéen a ko créé yéen a koy gérer. waaw loolu la bàyyi lu wax jooju xel. léeg-léeg ñu la noo Ousmane Sonko day manipuler gars yi xanaa Sénégal yi topp Ousmane Sonko ñoom ñëpp mënuñoo dof j'espère que ñun dofuñu ñun ñëpp dofuñu benn doomu aadama manipuler ay millions personnes mënul nekk y a quelque chose. bu di nag bu fekkee nit ki dafa am foo gëm-gëm boo teg ci moom tamit nag mën na la yóbbee loolee di. ñëpp mënuñoo bokk am gëm-gëm bi ci angle yi ñu xool Ousmane Sonko moo wute maa ñu tëb Ousmane Sonko yëpp angle bi ñu ko gëmee daa wute bu nekkoon ñëpp amandoo benn gis ci Sonko ma ne ñëpp dof lañu kon parce que waa ji xam nañu ne xew su nekkee ne nee na xaalis bi xool leen ko ndax mas naa ko laal ñu dem gisuñu ko terrain dem leen gisuñu ko benn mbir moo ci des. te su nekkoon ne mës nañu dégg Sonko ci mbirum jigéen ngeen baal ma parce que nit ki da nga koy àtte su nekkoon ci jiitu histoire Ousmane Sonko xamee nañ ko mbiru jigéen Ousmane Sonko xanaa ngeen baal ma waa Pastef nañ ma baal. ay nañ ma baal. ñi waa Pastef yi jigéen ñi ñu rafetee. Sonko bu bëggee jigéen bu demoon ci ñoom ñu ma de du def lu bon de. mais mu defee ko ba mu noppee kooku moo gën a gaaw. waaw mais tamit on peut pas être les sens. mais non parfait cest est-ce que xam nga nit mën naa àgg ci naïveté. nga déclaré 94 milliards. waaw mu leer la déclaré ñu ci sa tànk. ngay def connerie dem ci benn di fa def ak jigéen loo xam ne na ne am na ñu bokk ci nguur gi dañuy ñëw fii am na ñu bokk ci nguur gi dañu ñëw ci salon boobu. Hmm. Ousmane xam ko. ah loolu am na ñu ko wax de. non moo koy su ma la a rek jàppal léegi loolu nit mën na ko projet boo nga yëkkati. adduna si nga dem nga dem euh, comment nga dem hmm. troisième position. li ñu naan di nga yor réew doo ko yor bëgg jigéen bëgg jigéen nga nay yow loolu dafa logique sax ci xel gars yi nag foofu la ñu bëgg a mais bërëb ba bërëb ba nag mooy problème bi. très bien ñu ñëw ci foofu ngay dégg oustaz yu bari naan la. Mhm. dem ci salon dafa xaram attention baatu xaram ak dagan ay na nañ ci def ndànk. Mhm. billahi nañ ci def ndànk man ni mhm. damay njëkk baatu haram na dagan na def leen ci ndànk gis nga haram na yalla rek ñu may haramal d'accord te yalla mo naan li haram na ñu may haram yonent bi sax sañu haramal lan mo xew mhm. waji buñ ko nangul lu mu wax suñu yoon lay ne dafa ne dama yek ay douleur mhm. métit métit ma dem diko fajo fi waaw kon objectif bi lan la faj ay douleur waaw lolu dañ koy atté xam nga kañ la àtte ko mu dem pour def fa lu bon gis nga fi mu génne yéen a ngi fàtt dafa ne. Hmm. defuma lu fa lu bon te bu ko bëggee dellu dama fay delluwaat est-ce que yaa ñu rappelé wu loolu. waaw defuma lu lu bon. te su ma delloo bëggee damay delluwaat ku ku rep du def noonu. Hmm. doo violé ni ci béréb. Hmm. du fa delluwaat. ay kàddoom la rek de. voilà maanaam noo nit ki nag xam nga lan la nit ki loo gis est-ce que est-ce que Sonko mas naa mu teggeeku. loolu question laay posé gars yi. ñenn ñi de loolu la ñu wax. nee ñenn ñi jàpp nañu ne li muy wax dara taxawu ci. maanaam li muy wax ci kaaw Adji Sarr la ñuy wax. yeneen yi ba tey même bu defee ay ñoom ñi ngi jàpp ni comme le cas euh, setal nañ Mamour Diallo ba ko mu dem. attention ñoom ñoo ko setal ñan ñoo ko setal. àttekat yi. àttekat yi ñoo ko setal. Mm. rapport OFNAC bi lu mu def Mamour Diallo. du Sonko rek moo ci xaddi rapport OFNAC dafa épinglé Mamour Diallo même. waaw ah, da koo chargé. Mm. kon dañ ne waa waa OFNAC kon dañ font kon. kon mm. dañuy waxuñu dëgg. Mm. du benn. kon nañu bàyyi xel waa ji maanaam benn mbir la maanaam sikkaloo nit ñi rek la. te gis nga euh, juree ji. juree ji tamit dañ ko tuuma ci saa. dafa nekkoon ku texe di jaamu yàlla normal. gaa yi xaw ko mere quoi. ñu ne bàyyi leen benn jigéen dégg ko rek. comme da comme ça comme comme comme scénario bi rek. benn jigéen day jaay sell sell. saawu juree ji di kabaari julli mu jaar ci kanam di charme mhm. juree ji nag yaayam moo ko xaw a ñaanal ñaan bu ko dal mhm. yaayam da koy woo jamono fekk mu ngi julli mhm. léegi nag léegi wu muy hésité ndax wuyu yaay ji wala du wuyu yaayam julli naa fi la quoi yaayam ñóolu ko ko yàlla na yàlla wane leeg jigéen ñi bon ñooñu soxna sol moo ñëw tuumal juree ji dem fa la ëmbal ko mu ñëw andi doom ñi ne juree ji moo ko ëmbal gaa yi fekk jure ji ko bu ko dóor. Hmm. yow li nga nekk fii di jaamu yàlla da nga doon tappale ndeke même chose ñu ne ko wàcc mu ne lan la mu ne kii ne yaa ko ëmbal mu ne ok nañu wàcc suuf may leen moom a jàpp jure ju jàpp ba pare mu ne yàlla jure ju ñaan. Hmm. jure ju ñaan ci saa si yàlla génne leen ci. ndaw si moom mu ko reconnaître dafa am keneen ku ko ëmbal ñëw takkal ko juree ci. man dund naa loo xam ne Aïda. bu ma la ko waxee da ngay jaaxle am na xale bu jigéen boo xam daf maa woo. daf ma woo téléphone. lan la def dafa nekkoon ci kër tàntam am ku ko ci violé. tàntam nag nekk jigéen boo xam du seetlu xale. d'accord xam nga bu ñu ko koy sif bu ñu ko commencé sif nañ yóbbu ko ci beneen kër tàntam. tànt bi commencé du ne kii. dafa tëdd góor. xale bi bu ñu ko waxee kan la xam nga lu mu def benn booy bu ñu mës a tëj ci viol ci seen koñ kon bu ñu toxu la ko taxal. subhanallah xam nga kenn mënatu ko weddi. parce que mës nañ ko tëj ci viol. Mhm. dafa ko xool rek taxaloon nañ ko ba mu tijji ko mu ñëw. Mhm. waa ji dem kaso dee fa. xale bu jigéen tiit nag woo ma ne ma c'est fini ma ne ko maa ko wax c'est fini sax loo ci man taxal nga ko tëj nañ ko dee na foo koy baaloo ji. moo tax ma ne la il faut ñu def attention ci mbiru Sonko Sonko xam nga nit ñi. dañu dul xool phénomène bu yàlla di def ci nit xam nga man xam nga Sonko ngeen baal ma quoi su ma nee gënul sa demee damay wane sa bopp nit. Hmm. soo ko xamee. waaw nga xool ni muy demee da ngay gis ay miracle yoo xam ne yàlla dala ko ci wan. Hmm. nekkuma di ko tagg de. Hmm. ñun ñii man ma maa ngi gis loo xam ne du ko mësal ne xëy na wax naa ko ni ci biti mais pas nii di ba dégg. yaa ngi gis ay affaire ci Sonko maanaam damaa gis affaire am balaa ñu koy tuumaal. balaa balaa journal bi njëkk a génn.

waaw dina baax du ma nettali du ma nettali parce que du ma nettali gént waaw anam boo ko gisee daal mënuma nettali li xew mais man naa la wax ne dama ko xam nga am na yoo xam gént la ngay tudd daa am la gis la day lay wan yéen mm. ñi ñaata nit ñoo yow xëy ci yéen gént dara gis ko mm. tey da leen di dal du affaire du miracle waaw lii sax da ngay dara gis ko mm. kon mbir mi euh, nañ tam bi ci kanam mais mais Adji Sarr nag oustaz. xale bu jigéen boo xamante ni daanaka weddi nañ ay waxam teg fële. Mhm. te moom tamit ni ni Ousmane Sonko di insister que ni man euh, complot la mhm. moom noonu lay insister ni séq na dara ak ki nga xamante ni moom la porter plainte tey ci mhm. kooku tam ay waxam nu ñu koy mën a jàngatee tam kooku est-ce que dañ koy fëleñ rek fële na ko euh, li nga wax du dëgg. léegi nit kooku. Mm-hmm. wala bokk ñu ñëw dégg naa benn waaye naan noo non Sonko demoon kaso moo gën quatorze personnes dee. ñi naan non non au mu ne wax defuma lii mu ne dañ ma comploté moo dem. Mm-hmm. mu ne defuma ko fan nga ma sa gisee ku ñu tuumaal ngay dem di wanee ne man la ki ko tuumaal moo war a wane preuve ban réew lañ nekk. Mm-hmm. au contraire bu nekkoon soxna soosu daa tuumaal benn personnalité moom la ñu naan ciix nga bu ko moom dafa nekk Ousmane ko rek ngeen baal ma ngeen baal ma ci terme su nekkoon ne président la république la moom la ñuy jël si moom est-ce que xam nga li ma wax. voilà bu nekkoon président de la république loolu mal. Hmm. moom la ñuy jël si mais pas président de la république. ndax war nañ koo tënk foofu nag oustaz. non dama lay wax rek ne nit ki maanaam tuuma dafa rëy bokk ki ñu war a jël si mooy kan ki tuuma laate tënk ma ko dama lay bëgg a wax nit ñi ku nekk kat ak fa nga parce que tuuma daa metti de balaa nga koy xam rek ñu tuumaal la. dëgg dëgg ah, xam am na personnalité boo leen tuumaloon du ñu jël si ku ñu tuumaal dañ lay jël si yow ñu leen tuumaal. Hmm. misaal laay joxe rek bëgguma kuy tuumal président république mhm. bëgguma sax tuumal ni tegoo ko fen mhm. mais bu ko tuumaloon duñ ko jël si moom ki ko ka torool Ousmane Sonko lañ jël mhm. pourquoi ñu tuumaal la ñu ne kaay wane ni du yow da ngay woo soxna si mu wane ni yow la ba nga gis ne moom nii la jël si ko day yomb misaal lay joxe rek mënoon nañu bañ a dee gis na bi mu génnee offensé contre président de la république wax turam direct dama ne kii xanaa day xaru njiitu réew mi génn ci affaire suufe suufe yooyu man bokk ma ci ñu nangoo ko mais bi xeex bi tàmbalee nga dégg ni benn nit dee na ñaar nit dee na da ngay génn nga wax nga leen arrêté mm. xool lii commencé na série ah. sama waa kër lañ ciy tudd mm-hmm. man lañ ciy tudd arrêté ma xool lan la te askan waa ngi ciy faatu wala loolu moo ma gën a lool mm-hmm. maanaam benn goos bu mu dee rek mm-hmm. président day génne ne arrêté vous maa ngi ci dégg suma waa kër yi suma njaboot ba tudd nañ ma ci man. Mhm. taxaw leen justice gën nañ def discours ñëpp toog. Mhm. affaire bi na leer. dañ ko càmbar mu càmbar ko. Mhm. te ñu bëgg mu leer mu leer mais bu ñu demee ba nit ñi dee mu ni dañuy gëm ne non nguur du faible ci kanamu opposant ba muy jur bakkan yu dee. te jàpp ma ne ñi génnoon pour Sonko ñoo doon tiirante bal entre ñoom.

ministre de l'intérieur de waxoon na am na ñu ci rax. ñooñu ba tey kenn gisu la. waaw te loolu enquête bee ko waroon a déterminer. voilà kon da ngay gis ne am na lu xew ñu bëgg xëy na tilimal daruwaa na ñu naan non sama mu fa def da koy xam Ousmane Sonko suñu ci bëgg jigéen ñi xoolal li ñu continuer. keroog laa dégg benn waay mu ne. Mhm. ci ñoo ko wax de ñooñu. waaw Ousmane ko dugg nga port benn hôtel génnaat lan la joteeg li ñuy wax. jigéen ñi waroon wax ne. ñoom nee nañ jigéen la ñu gis mu àndal. jigéen la ñu gis ban jigéen la gis mu àndal moom lan la doon defal ak moom parce que il faut ñu bàyyi. Hmm. comme man mii oustaz su ma ànd ak jigéen rek ngeen génne ci biti gis nañu gis oustaz mu ànd ak gel hmm. kon ku ma àndal te du suma soxna war ngeen xam kon lu bopp rek laa mën a def ak moom quand hmm. su nekkee ne sax loolu am na. oui su nekkee loolu am na. ba tey ci ci sos yi kan, eh, da ngay yaakaar ne sos. mën naa am pour te dire parce que koo xam ne dafa génn tuumaal ba dolli ci benn général waa ji deful de xamul li mu xam ñu bëri xamuñu ko. waaw moom it est ce que du day chargé rek di indi tuuma di teg itam kon dina ko wex xat nañ dem rek que yow. Ya, ah ne ñi mu tuumaal

complot la suñu biir xam ko gis naa sorti yu bëri seen biir ñoom na weddi na ñenn ñi sorti yooyu génn nee na ñooñu bokkuñu ci ñoom te ay ay sos la rek sos yuy mën a entaché seen der ñoom ñoom ñoo ko mën a réglé maanaam bu demee bi ne seen biir ñooy génn di wax mhm. bàyyil xel ne am yaa quelque chose lu ñu xam moo tax la nit ki mhm. da koy xool man mënumaa gëm ku violé xale bu jigéen mhm. ba pare génn di menacé nit ñi mais lan nga gën gëm yow ci ñaari version yi lu ñu sos la teg ko wala véritablement lu am lu yoon war a àtt xam nga dañ ko sos pour yoon dina ko àtte déjà àtte bi man oustaz dama bëgg a xam sax nag islaam mhm. tey jii tey jii bu Adji doon dëgg mhm. li muy wax doon dëgg naka la ñuy àttee Ousmane Sonko ci lislaam sos yi mu sos yi ngeen jàpp ni sos la bu tey justice génnoon ne dëgg la ñu ne mbir mi dëgg la tey nu ko usta nu ko islam doon xam sa question bi pour ma répondre ko day difficile parce pour wax ma loolu ma koy jéem a càmbar sama xel a ko nanguwul mais dinaa ko nangul maanaam nga may wax ne maanaam ñu supposé sax. ñu supposé supposé boobu sax laa mën a accepté man entre moi. da nga ma tontu ci boobu après tontu ma ci Adji Sarr moom itam daan ba ko ca war a fekk. parce su nekkee ci yoonu àdduna la. Mhm. am na ñu koy waajal. Mhm. xam nga lan lañ ñu ko def. Mhm. dañu doon wax waxu viol. déggati nga ñu wax ko. il faut ñu déglu nit ñi dafa ñu. viol nga doon wax. génn nga ci léegi. waxatoo ko kooku rek est-ce que jar naa doom man foofu rek manam dama nan viol lañu doon wax hmm. génnuñ ci viol bi. Hmm. mais si jamais fekkee viol bi. Hmm. véritablement lu am la. viol bi amul. wa ah, bu ko justice dëggalee parce que supposition la kenn xamul. non non oustad sa gëm-gëm la. xamul tax man duma mako maa bay demee ci médecin ba lu wax. médecin bi daanaka kii toog na xam ñaat ñaata fan kenn tëddeewu ko. yaa gën xam góor ci médecin ba. xëy dañu dañoo ñu fu médecin ba ubbiwuñu ko dem wan ko fële Touré Touré ubbi xam ne eh ki kat. li médecin bi def ci kayit mën naa am da kaa xamul. d'accord ci la Touré commencé am ay doute moo tax dugul ci jeu bi. Mhm. loolu rek la comme foofu nañ ko écarté parce que du ñu ñooy wax fee ñoo ñuy wan. Mhm. maanaam dañu ma violé. Mhm. nga dem ci médecin pour mu confirmer ko. mu ne déet. d'accord kooku nag ku gëmatul médecin bi nag. kon naa tuumal médecin bi. ma léegi daan bi nag oustaz daan bi. daan bi ci diine wala ci. diine bi da da àdduna kay juste lañuy xaar ci diine laa wax. man jàpp naa ne violé wul. loolu moom moom moom dama bëgg ñu écarté ko. waaw loolu kii nañ ko man damaa bëgg nga jox ma àtte rek. parce que léeg-léeg itam dañuy dégg muy am. waa xam nga àtte bi euh, am na ci yoonu adduna ni ñuy daanee ku violé n'est-ce pas. Ah. crime la waaw dañu lay tëj xaw ma ñaataat. waaw n'est-ce pas ñu wax. n'est-ce pas. minimum kay daal islam. islam bu nekkoon ne moom la buy àtte mbir mi. Mm-hmm. nii la koy àtte soxna si lay woo. Mm-hmm. daa mel ni nga nekk ak sa soxna nga tuumaal ko njaaloo mm-hmm. dañu lay woo yow nga waat kenn fekkeewul mhm. xam nga. xam nga yi bu ñu bëggee jaxase ñoom yàlla rek a xam. Mhm. pour que nga nekk fa di dute. Mhm. man du ma dugg ci dut yooyu. parce que kii ne lii lañ ma def dafa génn weddiwaat waxam. kon damay def ndànk ci moom. islam nag bu ñëwoon nga tuumaal nit. dañu lay woo boo demee laa lumière suraat bu ñu wax an nuur mu ngi ko fay wax. képp ku tuumaal sa soxna misaal lay joxe entre jëkkër ak jabar la. waaw mën a doon diggante koo xam du sa du sa jabar du sa jëkkër. nga andi preuve. Mhm. sinon l'islam jàppale dóor la ba nga bëgg a dee. fekkee preuve dafa mat nag. preuve bu matee. waaw moom moomu. moom mhm. moomu teg ko yoon teg ko ci yar. Mhm. bu nekkee dafa nekkoon koo xam ne dafa am soxna ñu lapidé ko bu nekk amuloon soxna ñu dóor ko sans sans coup. ñu caw ko waaw ñu caw ko bu nekkoon dafa jot am soxna. ñu lapidé ko bu dee. Ah. ba amoo soxna ñu caw ko. ku jigéen ci tamit. bu andi preuve yi

noonu la doon demee kon ki tuumalaate mooy andi preuve mais pas ki ñu tuumaal. dégg naa tamit euh, euh, njaaloo mhm. pour ñu wax ni njaaloo am na il faut quatre personnes. waaw loolu ci ki tuumalaate la. ci ki tuumalaate waaw maanaam ki tuumal jabaram. wala tuumal jëkkëram lay naan demal wuti quatre personnes yu fekkee. Mm. boo ko amul mooy quatre waat yi ma lay wax nii maanaam boo amul seede danga nga ñëw waat quatre fois. ne billahi wallahi ta'ala li may wax deug la. billahi wallahi ta'ala li may wax deug la ba muy kat juromel ba. ne yàlla ma yàlla jepi su nekké waxuma deug ñu wo ki nga mal ñu wat même yow xam amna ko na fen su ma nekké jëkkër jaba islam tass sen diggante. parce que amna ko ku fen trahir na ci kàddu borom bi. dootu leen mën a seeti. mais ko andil preuve nak islam ciaw la. d'accord kon non islam di déroulé. kon ñu gis. ku ñu tuumaal ñu ko kaay nga wane ne du yow. motax effectivement Sonko lànk ni du dem. du yoon parce que ki nga buñ ko doon ciix ba tëj ko balaa ngay comprendre dërëm yàqu na parce que dafa xam balaa mbir mi xam nga da ngeen di bàyyi xel ne mm-hmm. li sonko am comme information man mii di wax aw ma ko ah. oui ña ko jege sax mën naa am xam ñu ko parce que il faut ñu accepter ne sonko ni mu demee am ñu koy informer quelque part mm-hmm. loolu mënuñu ko bañ kon da ngay def ndànk waa ji parce que da lay wax rek nga gis ne mm-hmm. nangam am na nangam am na nga continuer bay tuumal ay nit

na wax na ko. wa fofu na oustaz il faut nga leral ko. te oustaz ñu bëri ñu massage. kar Kebe mi neena na dootul demati sandu ah, da massage. ñu bari di dem dem la tay yóbbu lay lay hmm na jox misal neena nañ def dank ci lu kharam ak lu dagan. Hmm. misal lay joxe ñaati jigen ñom la goor di tiim nek sen gynécologue. waaw ah, bëri na de. Ah, na la goor di tiim di xol ci lo xamne ne moog rek mo am sañ-sañu xol ko. du fajoo ko waral. Mm-hmm. xëy na boo amoon pexe dem feneen nit dina ma ne non oustaz Ousmane Sonko amoon na pexe. Mm-hmm. nit dina ma ko wax mais est-ce que la ko yóbboon foofu dafa demoon pour def lu bon. Mm-hmm. foofu ngay xoolee. la ko tax a jóg la ko tax nga koy àttee. kenn du ko àttee dem bi man mii mën naa dugg ci baar récupérer femme buy naan. waaw ma payé mën naa dugg ci baar ma payé ko muy naan ma récupérer ko. parce que dama ko fekk ci naan du ma ko bokkatil butéel bi ci loxo mu mere ma. donc dama lay bàyyi nga consommé ma récupéré la ñaata ñoo fekk jigéen ñi prostitué récupéré leen kon nañu bàyyi xel bu baax yéene nit ki waaye dafa demoon pour def telle chose nga gis ne lan moo ko waral mooy am na jigéen bu fa nekk jógul ngir lool. gis nga problème yi léeg nit ne ma non bu fa demuloon du am la ko fa yóbboon ngay xam su nekk Ousmane Sogo dalal leen ne dafay wuti jigéen mhm. yónnee ko jigéen ñu ne jàpp nañ ko mais dafa doon faj ñu yónnee ko jigéen affaire bi raté moo tax mu tudd complot. loolu ci li nga loolu ci li nga jàpp la ba tey oustaz. ah loolu ci li nga jàpp. bien sûr jot la yow. bien sûr parce que salon Ndeye Khady dañ ko mujjee diaboliser ba mel ni. salon bi am na ay bagage ak li ak li xale bu jigéen bi wax ak yooyu. ci lii la wax. massage bu ànd ak sangook affaire yooyu. nga wax est ce que Sonko ca boobu la nekkoon am na fa est Sonko boobu la nekkoon. moom wax na ko de ah. moom nee na def na. waaw waaw parce que ma loo ci waxaat est ce que dinaa ko boo xam ne ku ne sa jugement bopp ngay am. presque te nag dina leer incha may tranquilliser nit ñi gis nga Coran dafa ñu waxoon ne buñ toogalee sa mbokku jullit neel def ko maa ngi taxaw ci position Alxuraan def ko ko parce que yaa Aïcha bu ñu ko tuumalee borom bi da leen ne. bu ma kenn wax ne nag yaa Aïcha Sonko niroowuñ de ñu baax la ñu baax la ñu bokk am ku leen tuumaal te waroo leen tuumaal. te gëm nga ne tey Sonko tam ku baax la. Sonko ku baax la macha allah. aji moom. Sonko ku baax la aji xaw ma ko. Ah, xaw ma ko hmm. tamit. non non parce que tamit. Hmm. man man xaw ko. Sonko la waaw waaw baax na oustaz. man nga xam voilà parce que ah. tamit. Mhm. Euh, su nekkee damay natt di ko natt. su ma su ma xëyee àtte ko ci ay feem man naa ko génne fu ma xam ne bëggu parce que kuy wax di dañ bëgguma ko man bëgguma sax tudd maanaam nekk ci mbiram parce que man li ma gëm mooy Ousmane Sonko mënul nekk ci kanamu Sénégalais yi dox loo leen manipuler leen ñu dàq jàng Ousmane Sonko ñoo fi nekk ñu ko gën a ragal yàlla ñoo nekk ci ñu ko topp y'a quelque chose nag te nag naa leen jàngal benn mbir réew bés boo demee naa damay yóbbante la ci ñu nekk ci ngóor gi mm-hmm. nguur gi lu ne def na ko fi ci wàllu réalisation su la neexee. Mhm. ba tey nit ñi mënuñu leen bëgg. surtout jigéen xam ne dafa ñàkk sax. Mhm. da nga ni toog seen néeg ngeen naan pourquoi may def lii te nit ñi bëgguñu ma. ah pourtant nag ñoo am majorité de. non majorité ak ñu bëgg la bokkul. Mhm. d'accord paa bi mën na nekk ci kër gi. waaw ku wax dóor la te kenn bëgg ci doom yi. paa bi mën na nekk ci kër gi ku wax mu dóor la te kenn bëggul doom bi da ngay gis ne ragal boobu sax mooy tax nga yaakaar ne moo fi am doole mais war nañoo laaj pourquoi lu ndaw sénégalais yi mer c'est il faut ñu poser que pourquoi lu ndaw xale yi mer pourquoi nit ñi nga gis ni kii moo def lii ba pare ñu topp benn waay ñeneen da ngeen dof ñu continue di ko topp phénomène boobu pour lan la il faut ñu poser question parce que mënu wax ne sénégalais dañoo dof xëy na am nañu fu ñu gis ne fii daf ñu ciy génnee loolu lañ waroon lijjanti te nag fa ñu daje moom ñax du fa sax fa muy mujjee ñax du fa sax moo tamal la ci tàmbali bi mbiru sonko business léegi ci ñenn parce que ñu ci gagné xaalis ñenn ñi bëgguñu mu jeex parce que bu jeexee ñenn ñi tam ñu ngi ciy ut tur waaw way way ñenn ñi moom ñu ci di ci wax lu leen wóorut n'importe quoi affaire te nag ah. man damay wax ne képp kuy wax naa la bàyyi sa conscience nga mm. dellu boo tëddee yonent bi salaa salaam mm-hmm. parce que man julit laa mm. gaañ dañ génn ci penc mi ne daa dof mm-hmm. dafa commencé woote rek ñu ne daa dof mm. taxé ko n'importe quelle affaire daa dof mhm. dañ ko njabar mhm. alxuraan sonu ci mhm. dof naag doful ak da leen ne sérieusement ku nekk petoo leen deux mm-hmm. individuellement ngeen réfléchir seen digganteeg seen conscience est-ce que kii daa dof. moo tax nit dina génn ci penc mi di taxal Ousmane Sonko. Mm-hmm. bu duggee ci néegam li koy mm-hmm. con li ñuy wax ci man li ma wax nii sama làmmiñ. sama conscience moo may yedd après. dëgg la oustaz dëgg la oustaz alors oustaz li ñu jëlale woon ci waxtu jeex na doyaluñ ci waxtaan wi sax waaye xam naa dañ koy leb ba beneen yoon ñu bàyyi la nga tàgg. ñu lay gërëm. Euh, yàlla yàlla fay taxi nañ ko fi salafis terroriste rebelle ba tey nit ñi mënuñoo gëm tey ñoo noppalu yàlla su yëkkatee nit. Hmm. dana mel ni Moussa ba muy retourné ne Firawna da ngay libere nit ñi wala ma libere leen. Hmm. mu ne ko doo fa ko defee mu dàq ko mu dem géej mu dem ba tiim géej gi ñu ne teel a Moussa dee yàlla ne ko dóor seet ci géej gi mu def douze mbedd douze mbedd parce que douze famille lañu ñëpp a jàll. histoire ñu lem ko mu jeex. Mhm. kon ku yàlla may doole boo ko utiliser da koy nangu. Mhm. faut pas ñu nekk fii di def ay. ay dañuy jouer ay jeux d'enfant la yii. Mhm. foo ñu génn ci nit ñi toppatoo leneen dem liggéeyi loolu laay ñaan. su ko defee yàlla yàlla fay leen. amiin amiin ñu leen di gërëm encore.